sallallahu alayhi wa sallam dencal na ko xeet wi xeet wi di xëy di ci xëy ca trésor ba di ca jël di jariñoo suñu bind bi weesu dafa nekkoon ci jàng alquranul karim waaw ak yi ci aju yëpp tabaarakallaahu yàlla ñu ci yàlla xéer ñu ne ca di jàng mbaa di jàngale mbaa bëgg ña koy def tey sunu bind mi ngi jëm ci shukru al axirin al axirin loolu mooy lan mooy sant ku la defal dara sant ku la defal dara ndax def-def nit dafay am yu mënul boppam ñu mënal ko ko mu am yum man ñu di ko koy defal mu am yuñ koy defal te du ko foog nit ki jël ci dooleem mbaa ciw ñaxam mbaa ci taaxam jox la nit ki jël ciw ñaxam jox la mbaa mu jël ci taaxam jox la waaw wala wala walla wala am na sax léeg-léeg nga gis soo xam ne dana jël ci darajaam jox la maanaam daal kon defal na la dara daana xew ci pénc mi jigéen toggul moroomam toggut mu yekk ca yët ko ñu tudde ko ab yàq waaw kon defal na la dara jigéen daana jeexalub gaasam moroomum jigéenam abal ko gaz jigéen daana jeexal ceebam moroomum jeegam lebal ko ceeb waaw jigéen daana jóg di dem am xew moroomum jigéenam abal ko takkaay kenn du yëg jigéen daan dem am xew moroomum jigéenam abal ko yére kenn du yëg noonu it ci góor ñi noonu it ci góor ñi waaw waaw ku ci nekk di di defal sa moroom deflante yooyu ci pénc mi la sunum pénc rawe pénc yu bari ba nga dégg ñu naan teraanga Sénégal defal deflante yooyu moo amoon ci pénc mi ci ci anam yépp nag waaw ci anam yépp moo daan dox diggante sëriñ bi ak taalibe bi waaw sëriñ bi taalibe bi di def di def di def ba am ba am sukkuram cantam walla ngërëmam ngërëm ak cant nag léeg-léeg ñu di ko wóoteeg nga ñu di ko jaawale léeg-léeg nga dégg ko ne maa ngi gërëm yàlla waaye wolof ki muy gërëm mooy kem def loo li muy def mu def ko ba noppi raxasu mu gërëm ko kon su boobaa maa ngi gërëm yàlla boo dee ci wolof day wax ne déedéet da nga maa ngi sant yàlla waaw maa ngi sant yàlla bu dee nit nag bu defee ba jeexal bu la neexee nga ne ko gërëm naa la bu la neexee teg ca sant naa la mën a jëflante yooyu moo daan am kenn du lekk bàyyi sa morom waaw kenn du lekk bàyyi sa morom boo ma sànn jóg deñ ci soxna bu la say morom jàppalee sa ciit baax waaw bu ma jóg denc soxna bu la say morom jàppalee sa céet baax liñ lay jox mi ngi tudd ndawtal waaye bu jigéen masaana jógee kër baayam ak yaayam di dem kër jëkkëram bu koy moroomi jànqam jàppalee ab demam neex loolu moo tuddoon yépp jigéen jaa ngi dem këram moroomi jigéenam yi indil ko yet léegi nag dafa yàqu biñ ko tuddee kado waaw dafa am ab déviation bu ci am biñ ko tuddee kado nga xam ne léegi dañ koy laxas jox la ko noonu bu njëkk daawuñu ko def bu njëkk ki lay jox day teggee ci néegam ab kaas walla ab baraada mbaab tame mbaa layu mbaab siwo mbaa paan ngàbbal ko boppam yët la ko saa boo xoolee paan gi sa xel dem ci bi ngay ñëw ci kër gi kala ko joxoon moo tax kenn daw ko xebal kenn waaw dafa am benn américain bu mas a ñëw ci réewi araab yi mel na réew dafa juróom-ñaari at jàpp juróom-ñett ba ñibbi jotee ba mu ñibbi lu dul kàddob jinne jox nañ ko ko am na fa benn ostaas boo xam ne la xam doy na li ko gaa yi jox moom amu ko mais mi ngi woon akus lu muy tudde as téere ku tey yëpp téere bu ndaw mu dem rekk jox ko américain bi américain bi téere boobu marqué ko ndax tuutaayu liñ ko jox ak ki ko jox nim ko ko joxe mu bàyyi fa kàddu yépp ne ca téere soosa ne ca téere sa ne ca téere sa ba yàlla leeral am xelam akub xolom ci lislaam mu dugg ci lislaam daal di bind nag ci téere boobee waaw tudde ko ganug yàlla gi lan laa bëgg wax mbokk yi mooy jëflante yooyu ñuy jëflante te amoon ci pénc mi tey tàmbalee dem nu ñaan suma boroom bu mu dem jëflante yooyu ma ne jànq boobu daan sëy xale yi ñoo ko daan moroomam yi ñoo ko daan Euh, yëpp jox ko seeni bagaas may ko seeni nangam ñi jox ko complète ñu jox koy dàll lu ne ñu jox ko bu àggee yëpp bi benn bu ci nekk bi nga ko daan jox lii ne sa digganteeg moom dutu ko fàtte waaye léegi cadeau mariage lañ ko tudde waaw muur ko ba muuru takk kook ndeysaan euh, takkin wu rafet ŋàbb ko jox ko ko defee moom du xàmmee biñ ko ci jox ak la nekk ci biir loolu moom lañ tuddee euh, def-def bu dee ku góor ki ay moromam ñooy ñëw xëy si ku ko nuyu nuyuwaale ko dara su boolee dara yooye dana am lu mu jëndem xar ak lay ànd akum xar ca ciit ga waaw léegi nag loolu tam mi ngi xewi si ndax bu xew jotee nit ñi yaayi ndaw si lañuy ñuy jox wala bàjjanam mbaatantam nit ñi léegi daanaka foofu lañ ko jëmee te bu jëmee foofu defar ga ñàkk defar ga mooy ëpp ah deflante yooyu léeg-léeg nga dugg ci oto nit dugg joxe paas jot mu joxe paasam ak sa paas mu joxe paasam ak sa paas waaw waaw léeg nit jël billet màkka allahu akbar jox nit ni moom jëflante yooyu léeg-léeg nit takk xaalis bu baax walla mbuus gu baax def ca lu baax jox sëriñu daara jox sëriñu daara yu ni demee bari na ci pénc mi li ngeen ci xam moo ëpp li ma ci xam waaw li ngeen ci xam moo ëpp li ma ci xam léegi nag kooku la defal loolu kooku la defal loolu dafa am lu sallallahu alayhi wa jàngale daf ne boo santut kooku boo santee yàlla du ko saf hadis bi sunu waajur xaaj Abdul Aziz aka ko bëggoon aka ko daan baamtu waaw ndax day hadis bu am solo tey day hadis buy defar ay diggante daanaka waxtaan ba waxtaan wa jeex te waxu ko naadir waaw lu néewal daan doon ndax hadis bi daf ne man lam yashkuri naasa lam yashkuri laa waaw ku santul nit ñi doo sant yàlla walla ku sëntul nit ñi boo santee yàlla du ko saf du ko saf xam nga nit ki ñëw ci ndaal yi tànq mu sedd mu naan mu ne ndaalee ka neex ndaalee ka neex déedéet teen bee neex kay la ñuy wax waaye ndaalee ka neex moom dootu ko wax dañ naan teen bee ka neex bu la neexee na nga ne ndaalee ka sedd waaw moo tax kon kii la defal sunu borom daa bëgg nga sant ko sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon bëgg nga sant ko boo ko santee ba noppi nag boo santee yàlla mu saf ko waaye boo ko santul jéggi ko fa di sant yàlla yàlla mu la déedéet dellul ca kama fab mbir mi teg ko ci loxoom mu teg ko ci sa loxo nga sant ko door maa sant waaw sunu borom it jalla jalaaluhu azza kamaalu moonu moom di dox ak ñun léeg-léeg ci logique waaw sunu borom daa jaarale ak xéewal ci loxol nit nit ka yët la ko mbaa mu yónnee la ko mbaa nga dem jëli ko yaa ci xam lu mën a xew sunu borom nga daal ni alhamdulilah mu ne ah baax na de waaye ki ma teg xéwal gi ci loxoom sant ko door maa sant man borom xéwal gi yëgal seddaayu ndaal yi door a wax neexatu teen bi mbokk yi maa ngi ci min ku noo si sunna ni ñu koy defee dimanche bu jot ci waxtu wi tabaarkalla maa ngi ci tom ba am solo mooy sant ku la defal lu baax sant ku la defal lu rafet waaw sant ku la defal lu baax sant ku la defal lu rafet waaw lu am solo la lu am solo la daana tax nit ñi mën a def fi na soo seetloo xale waaw euh, bintu seex sekk éducation wala boog bintu seex sekk euh, waaw xale yi wax ci euh, éducation laa bëgg a wax moo di xale boo ne ko waaw góor da gis ni mu kontaane xale bu defee dara nga ne ko waaw góor da ngay gis kontaante na ci moom ndax loolu lu naturel la ci nit waaw kon santante gi ci la bokk waaw santante gi ci la bokk waaw man lam yaskuri naasa la meskurilah ku santul nit ñi boo santee yàlla du ko saf ku bëgg boo santee yàlla mu saf ko bu nit ñi defee sant leen la defal loo mënut waay waay sant ko léegi nag pénc mi it sant gi léegi dañ koo tubaabiisee moo tax caf ko gém daan caf du ko saf waaw cant gém daan lim daan safe du ko saf ndax léegi merci waaw nga def dara ñu la merci waaw cettt lim daan caf ci jërëjëf lim daan caf ci jaajëf lim daan saf ci jazakum law xayra lim daan saf ci yàlla na la yàlla fay ah du ko saf ci merci <coughs> waaw te fi ne loo defal xale da dégg ñu ne ko yaayam ne ko doo ko wax merci <coughs> ngeen baal ma doo ko wax merci xale bi na la merci aha tàmbali fa nag waaye def ci mën merci waaw loolu day yonent bëgg na ko lool nan ko dégluwaat ci beneen hadiis bi ma doon wax ni sayxul jaami ca la nekk waaw tabarkàlla lil albani waaw ca la nekk mu ñëw ci beneen boo xam ne bii ma ngi ca euh, at tirmisi alayhi salaatu salaam def ne man sanaa ilayka wala man sunaa ilayhi maaruf fa qaala li faa'ilihi jazaaka allahu xayra faqad ablaqa fi thana ok bu wësab xorom nee na koo xam ne dañ laa defal njekk koo xam ne dañ laa defal maaruuf dañ laa defal njekk dañ laa yàkkal dañ laa yippil yippil mooy dañ laa may yére dañ laa dañ laa yippil mooy dañ laa may yére dañ laa yóbbu màkka dañ laa may biyëb màkka dañ laa may kër dañ laa may terrain dañ laa may oto waaw dañ laa may oto dañ laa dañ laa dañ laa maaruuf daal lañ la defal maaruuf mooy kon njëkk lu la ko wolof tuddee njëkk nag yaatu na waaw njëkk yaatu na tabarkàlla nee na nga daal di wax ki la defal njëkk jazaakallahu xayra yonent bi ne la la la la waroon ci tagg la la waroon ci sant la la waroon ci ngërëm lépp defal nga ko wàjj ndax lan danga nga ne ko yàll na la yàlla fay allahu akbar jazaakallahu xayra yonent bi di waxul nga ne ko merci waaw waaw waxul loolu de daf na danga naan ko jazakallahu xayra yàlla na la yàlla fay man a gis nga tem-tem ji nekk ci jazakallahu xayra nekkul ci merci hmm? waaw nekkul ci merci jazakallahu xayra loolu leneen la bu ko defee léeg-léeg mu ne la amin wa iyaaka bu dee góor amin wa iyaaki bu dee jigéen amin wa iyaakum bu dem mbooloo waaw mbokk yi maa ngi ci min kunoo si sunna niñ koy defee fajaru dimaas dem ci li nu yonent bi dencal ñu jël ca jariñoo tey fi mu ñëw ak ñun moom alayhi salaam mooy teraanga yi ak njëkk yi ñuy jëflante teraanga yi ak njëkk yi ñuy jëflante ak ni ñu recevoir di teraanga yeeg njëkk yi ki la defal loo mënut hmm? waaw ki la defal loo mënut tabaarkalla jazakumullahu xayra nee na boo ko waxee rek faqad ablaxa fi sana hadis boobu ak Tirmisi nekk la na ko waaw beneen bi ci hadis yooyu nga xam ne mooy ku la defal njëkk nga sant ko dafa wax ne wa man ataa ilaykum maaruufa fa kaafihu fa in lam tajidu fad'u lahu xatta taalamu an qad kaafaxtumu aw kama xaala nee na ku leen defal njëkk képp ku leen defalati njëkk allahu akbar képp ku leen defalati teraanga moo xam xeetu teraanga wu mën a doon mu ne ha mu ne fexe leen koo fay dee leen fay teraanga wolof nee na kuy gàntu teraanga naroo koo fay <laughs> waaw kuy gàntu teraanga naroo koo fay hmm? waaw waaw tabarkalla kuy gantu teraanga naroo koo fay mu ne ku leen defal teraanga jéem leen koo fay waaw leen koo fay waaw lu am solo la mbokk yi ku leen defal teraanga jéem leen koo fay àdduna it ci teraanga lay dox am na ñu bare bare bare bari teraanga rek lañ xam moom lañu bëgg bu déviation amul jàdd jàdd amut penc mi lépp daanaka teralante woon ak i teraanga rekk nag mu ne kon ku leen defal teraanga jéem leen koo fay loolu la yonent bi jàngale jéem a fay teraanga jiñ la defal moo tax boo daan ngénte ku la ndawtal buy ngénte nga ndawtal ko booba nag kiy ndawtal lim am lay joxe bu xewlee ki koy fay si lim am lay joxe boo ko yëtoon un million nga xewle mu yët la dix mille kenn du yëg waaye bu fekkee danga nga ko indil million te sañu laa indil lu yées million bu la tegalee ca million ba dara alal ja dëgganut Hmm? waaw waaw bu fekkoon dafa xewle nga ŋàbb sa million jox ko nga xewle mu ŋàbb dix milliers la million baag dix milliers xew yem seen diggante yow mi yóbbu sa dix yow mi yóbbu sa million mu fay see la dix la manqué ca million ba sa boroom a koy mottali te mottali sa boroom moo gën sa mottali yow waaye ni mu xewe léegi ku la yët cinq cent mille six nga koy yët sinon mu xas la ay bokkam xas la sa mbokk xas la loola su boobaa loolu alal ju xaram lay doon ci diggante ñu koy jëflante waaye su fekkoon kenn bindu ko fenn dangay xew la mu yët la cinq cent mu xew la ngeen ko saamil nga ne cell mu ne cell loola ci seen digganteeg seen boroom la te itam dana fay ba ku nekk sa xel dal ci lim la xam ne moom la fayee yonent bi nee ne kon ku leen defal njëkk jéem leen koo fay ñu ne waaw mu ne fa illam du bu ngeen amut lu ngeen ko jéem a fayee maanaam lim la yët yow amu ko ah waaw lim la yët ba mu xewlee amu ko fad'u lahu ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla bam xam ne fay nga ko maanaam ci ñaan yàlla yow nga koy fayee ndax yëdd na la un million bi mu xewlee dix mill nga am bu mu la tee dem de boo demee nag ko ñaanal yàlla ba mu xam ne ñaanal nga ko yàlla mbokk yi benn bind nga noonu ci min kunuusi sunna hadis boobu sayih saxiix eh, la hadis bu wér la eh, Abu Daawud ak yi nekk nettali nañu ko jër ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ak suñu fa te jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni i këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncal lañu ko ci olof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu partenaire bii C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara